wa yassir li amri waxlul uqdata min lisaani yafqahu qawli wajcal kalaami raashidan wa murshidan wa fikrati nawir wa qalbi arshida mbokk yi ñuy topp yépp noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di am mbégte ci tàmbali ay jataay yoo xam ni dañ ko fas yéene siq ak yéen ci xikam yi nga xam ne moom la sëriñ bu mag bi daan wax fas yéene eh, jataay bu ci ne danañ jël benn xikma eh, jéem koo leeral ci wolof jéem caa leeral itam sunu kem kàttan ak li yàlla baaxe ca ak dégg ci waxe sëriñ bi xam ngeen ne sëriñ bu mag bi waxam jépp xikma la waxam jëpp dana fees dell ak i njariñ baat bu mu wax rek baatub leer lay doon boo xam ni ku ko dégg dana la mën a jariñ dana la mën a eh, defaral mboolem sa dund gépp ndax baat bu mu wax rek mboolem xeeti maxnaay leer yi ak njariñ yi dañ cay tàbbi ba tax na ay waxam it neexut a dégg ndax day làmboo maxnaa yu bare bare bare bari làmboo itam ay njariñ yu baree bari yoo xam ni eh, kenn ku ne ak fa sa fa ca sag dégg yam eh, xikma yi nga xam ne nag moom la sëriñ bi def yu bare bare bare la ku ne xam na ne xikma eh, mooy wax ju gàtt ju làmboo njariñ yu bari ak maxnaa yu bare bare bare bari yoo xam ni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla da ko joxoon jawaamiul kalimi waaye loolu it da ko war a fàttali sëriñ bu mag bi itam gis nañ ñenn ci eh, nit yàlla ya jiitu woon ñu jot a def ay xikam waaye li ci sëriñ bi def ak lim ci wax loola kenn eh, dëbagu ko ci ci bariwaay yàlla dafa dogal nag mu tasaaroo ci biir majmuwa yi nga xam ne moo am mooy bii Cheikh Abdoulaye dajale woon te mu gën a gàtt ak majmoo biñ dajalee ci sëriñ jamono Cheikh Saalihu Mbakke ak majmoo ab sëñ Mor Penda bi ak majmoo lu mel ne diwaanu silkil jawahir ak majmoo ab Baye sëriñ Silla yooyu boo ci seete da gis ne mboolem xikami sëriñ bi yëpp ma nga ca bi ñu ci jël tey jii nag mooy li mu wax ne min fawaidi maarifati kawnihi taala fi kulli makanin wa huwa maakum aynama kuntum an turaaciya maciyatahu fi kullin min al ashyaa fa mata xatara bi baalika shay'un fa tafakkar maciyatahu fihi in kaana xayran fa nicma wa illaa fa tub minhu innahu alimun bi daati sudur wa in aradta an taqula shay'an fa tafakkar maiyatahu fiihi in kaana xayran fa qul wa illa fa tub qad samica allahu wa mata aradta an tafcala cheyan fa tafakkar maiyatahu fiihi in kaana xayran fafcal wa illa fa tub minhu inna allaha basirun bil ibaadi wa min fawaidi macrifati kawnihi tacaala lahu kullu makaanin an tandura fi lmakaani alladi kunta fiihi in kaana makaana xayrin fajlis wa in kaana makaana charrin fa qum tantafic wa tanju wa min fawaidi macrifati kawnihi tacaala lahu maa fi kulli makaanin an tandura fi lmakaani alladi kunta fiihi in raayta xasanatan fafcal mislaha wa in raayta sayiatan fajtanibha wala tafcal mislaha wa min fawaidi maarifati kawnihi taala lahu man fi kulli makanin an tandura fi lmakani alladi kunta fihi id raayta ahadan min almukrimina min almukramina fa akrimhu inna akramakum inda allahi atqaykum wa in raayta ahadan min almusiina almagrurina fastur awratahu tanju min najasatihi wa danasihi wa jurmihi wa tukram xikma bi xaw naa gudd mel na ne itam cosaan li wolof la woon ci la ko sëriñ bi waxoon waaye mag ñi dañ daa def fu sëriñ bi waxtaanee ba noppi rek dañ koy tënk bind ko ci eh, làkku arab loolu moo indi sëñ Maxtaar Bintaloo gis nañ lim ci bind sëñ Mor Penda bi ma waxoon ak ñeneen ñoo xam ne bu sëñ bi nopp masaa noppi jataay bi rek dañuy dem bind ko ci ci ci ci arab mooy yi fi des xikma bi dafa jëm ci eh, bàyyi xel suñ borom fukk lu suñ borom tabaaraka wa taala suñu suñ tubaa ko daal digle lu bare bare wax ne jaam bi waxtu ne dafa war a bàyyi xel boromam subhaanahu wa taala nee na nag boo ko bëggee bàyyi xel da ngay njëkk xam ne bërëb boo ne ma nga fa ne ànd ak yow dal di jàng aaya bi mu wax ne wa ay maakum aynama kuntum bërëb boo ne rek sunu borom moom mii nga fa ne ànd ak yow mi ngi ànd yow foofee foo mën a nekk rek mu ngi ànd ak yow lu teqali ko yow mukk foo mën a nekk rek mi ngi ànd ak yow loolu nag boo ko xamee di nga bàyyi xel ànd gim ànd ak yow rawatina mu lay gis te xam sa lépp loolu war na jural kersa sa digg ak moom ba lu baree bari nga rus ko nga rus ko jomb ko itam ngir ne yàlla mi ngi lay gis ndax kenn ku ne ci noonu am nga kilifa goo xam ni su dendoon ak yow su dend ak yow rek di nga sàmm teggin ba yu bare bari di nga di ko moytu te kilifa yooyu li tax ñu ànd ak ñoom yàlla la sunu borom tax la mooy li nu booleeg ñoom suñ tubaab nag moo tax mu ne foo mën a nekk rek dangay xam ne yàlla mi ngi ànd ak yow loolu boo ko defee di ko bàyyi xel ne loolu nag dafa am njëriñ lu ci juddoo mooy day tax ngay sàmmonteeg sunu borom ci mbir yépp di ko bàyyi xel ci lépp. ci say xalaat tàmbalee ca ak say wax ak say jëf lépp loo xam ni xam nga ni lii lu naqari yàlla la nga bàyyi ko ngir yàlla ak rus yàlla lépp loo xam ni itam ab safaan la bu ci sa xel na rey jëm nga euh, fexe ba wëlbati ko mu jëm ci leneen kon ñaari mbir moo moo jiitu ci xikma bi mooy nga xam ne yàlla mi ngi ànd ak yow ci lépp loolu nag am na njariñ lu la war a jural njariñ loolee mooy ngay sàmmoonteeg ànd gi yàlla yàlla ànd ak yow ci lépp di ko bàyyi xel ci lépp di ko fuglu ci lépp ndax sun borom tabaraka wa taala wax na nu ci alquran ne inna allaha la yaxfa alayhi shay'un fi l ardi wala fi lsama maa yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid dara ump ko te looy wax mbaa nga koy jëfit na nga xam ne lépp dégg na ko lépp gis na ko te yëmut ci loolu wut na malayka yoo xam nit ñoo koy tënk di ko filmer di ko bind kiraaman kaatibiina yaxlamuuna maa tafaluun te bis dana ñëw lépp ñu tegalaat la ko moo tax sëñ bi ne kon li jiitu ci fuglu yàlla mooy nga xam ne foo ne mi ngi fa ànd ak yow te loolu lam la war a jural mooy nga di ko bàyyi xel ci lépp mu tëj ce ne saa yoo xamee ne am na lu toq ci sa xel rek ay xalaat yu toq sa xel xalaat yooyee nee na la nga ci njëkk war a bàyyi xel mooy ne yàlla kat mi nekk ak yow ànd ak yow te gën laa jege sa buumu xol wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid yàlla moom yi nga xam ne xalaat bii kat yëg na ko te gis na ne yaa ngi ciy jëm xal yaa ngi ciy bëgg xalaat nee na it nga teel ko bàyyi xel bu dee lu baax la moom moom loolu alhamdulilah fa neex ma bu dee safaan nag nga gaaw tuub nga gaaw tuub jéggalu yàlla ci xalaat yooyu toq nee na foofu la fuglu yàlla tàmbalee mooy lii toq sa xel bu dara tàmbalee toq sa xel ci xalaat rek na nga bàyyi xel ne yàlla mi ngi gis xalaat yooyu mu ngi lay gis yow itam di xool naka ngay nar doxale sa digganteeg xalaat yooyu yi nga xam ne xalaat yu ñaaw la bu dee yu rafet moom alhamdulilah waaye bu dee sawaan ba nee na la nga war a daal def rek mooy dal di tuub dellu ci yàlla xam ne innahu alimun bi daati sudur nee na loolu itam boo demee bay wax ba nar yëkkate sa kàddu na nga xalaat ànd gi yàlla ànd ak yow bàyyi ko xel ci li ngay waaj a wax nee na bu dee wax ju baax nga doog koo wax kon bul jëkkee ko rek di wax di wéy waaye li ngay wax nee na nang ci xalaat yàlla bàyyi ko ci xel xam ne yàlla itam li ngay li nga waxagut ak lépp moom mi ngi koy gis moom yaalamu sirra wa ak axfa la wax lépp la xam moom dara ump ko léegi nag li ngay waaj wax soo ko setantalee gis ne lii lu baax la nee na mën nga ko wax ndax aw yiw rek nga cay amee soo ko setantalee nag gis ne lii du wax ju yàlla gërëm nee na na nga daldi tuub ci nar gi nga ko naroon a wax sëñ bi wax ne loolu daal koy jeexale wax jooju mu jeexale ko inna allaha basirun bil ibaadi mooy xam ne yàlla mi ngi lay gis mi ngi gis ñépp di gis lépp te dara dara dara dara umb ko mu teg ca ne bërëb yépp suñ boroom a ko moom xam gi nga xam nag ne yàlla moo moom bërëb yépp bërëb yépp dafa am lu mu la war a jural njariñ lu mu la war a jural njariñ la mooy bërëb bi bu fekkee danga faa nekk nga xool bu dee bërëb bu baax bu lay sóob ci lu baax di la jëme ci lu baax nee na foofu moom mën nga faa wéy di ne mën nga faa toog boo bëggee toog mën nga faa nekk boo fa bëggee ne waaye bu dee bërëb boo xam ni bu baax wala lu lu naqar yàlla ma fa wala lu bon ma nga fa wala lu lay jëme ci ab safaan ma fa nee na foofee moom dal dil jub boo ko defee dinga nga jariñu te di nga mucc nee na loolu it ci ni ñuy bàyyee xel suñ boroom ci la bokk mooy bërëb bi itam na nga ci bàyyi xel yàlla xam ne moo bërëb yépp ginnaaw moo bërëb bi nag boo fi nekkee da ngay seet bu bërëb bi dee bërëb boo xam ne dalay jëme ci lu baax nee na man ngaa wéy di nekk foofee moom ndax foofu rek la taalibe bi war a wër waaye bu dee bërëb boo xam ne dalay yóbbu ci ab safaan wala lu naqari yàlla nee na bërëb boobu moom kon danga dal di jóg bul fa wuy mukk di toog mbaa di fa ne neen loolu boo ko defee di nga mucc te di nga jariñu ba tey nee bërëb bu ne itam la fa ne yàllaa ko moom lool it xam gi nga xam ne yàlla moo moom mboolem li ne ci bërëb yi am na lum la war a jural te mooy lafane ca biir bërëb ba nga xool ba xam lu baax la ak lu lay sóob ci lu baax ak lu lay dimbale ci jëf ju baax ak wax ju baax ak melo wu baax bu dee loolu la nee na moom na nga euh, jëflanteeg loolee ne ci bërëb boobu moom mën nga wéy di ko jëfandikoo waaye bu dee lu lay sóob ci ab safaan nag nee na loolu na nga moytu yooyee nekk ca bërëb boobee kon yàlla moo bërëb yi waaye moo moom li ne ci bërëb yi itam waaye moo moom itam ñi ñu nekk ci bërëb yi nit ñi nga xam ne ak mbindeef yi nga xam ne ñoo nekk ci bërëb bu ne itam na nga xam ne yàlla leen moom nee na loolu it dafa am njariñ lu ci war a juddoo mooy bërëb boo ne boo fa gisee waa ju baax ju yàlla teral nga teral ko ngir yàlla jox ko cër ngir yàlla wormaal ko ngir yàlla loo man ci defal ko ko itam ci lu baax nga defal ko ko teel rek a tax waaye mu leeral nu teraanga ji euh, nan lañ koy xàmmee mooy inna akramakum indallahi atqaakum la suñ la sëñ bi wax mooy ki la gën a rëy teraanga ki la gën a jege yàlla ki la gën a baax mooy ki la gën a ragal yàlla rek nee na ay bërëb boo ne itam gis fa jëmm joo xam ni xëy na aw meloom du meloo wa gën nee na kooku it am na loo war a jëflante ak moom te mooy nga suturaal ko euh, la nga xam ci moom ci aw ñaawteef nga bañ koo tasaare bañ ko yàq loolu boo ko defee neen na suñu borom dana la musal ci loolee ko yàlla nattoo ak loolee muy def te dana la defal dana jëflante yow teraanga itam kon xikma boobu xikma bu am solo la boo xam ne day sóob euh, murit bi ci bàyyi xel yàlla ci lépp waaye itam mbir mu ne itam boo xamee ne yàllaa ko moom ba noppi na nga ko war a jariñoo loolu waxaale na ko ci mooy bërëb yi ak li ne ci bërëb yi ak mbindeef yi ak doomu aadama yi yépp kenn ku ci ne am na noo war a jëflanteeg moom te mooy nga bàyyi xel yàlla ci moom xam ne li ngay def lépp itam yàlla mi ngi lay gis te dara umb ko ci yow te sunu borom moom lépp lu waaye def ci lu baax rek dana la ko fay suñ Tuubaa dana wax ne àdduna kenn deful kenn dara kenn defalul kenn dara lu waaye def boppam lu waaye def rek danga ko gis fa man yaamal mithqaala darratin xayra yara ma man mal mithqaala darratin charra yara kon jaam bi waxtu ne war nay bàyyi xel ànd gi suñ borom ànd ak moom bërëb boo jëm rek moom nga fay fekk loolu la sëñ foo nekkee mi ngi ànd ak yow aynama tuwallu fa thamma la yàlla mënoo ko génn ci ci genn anam wa huwa maakum aynama kuntum loolu nag ku ko bàyyi xel di nga rus suñu borom ci yu bare bare bare bare di euh, moytu jëpp wax ju yàlla gërëmut di nga moytu jëpp jëf ju yàlla gërëmut dinga nga moytu itam jëfandikoo walla laal sa cër yi itam da nga leen jéem a sàmm ci lépp lu yàlla gërëmut walla nag ku ko def daldi ngay dugg ci eh, jege ngërëmul yàlla subhaanahu wa taala kon loolu moo doon xikma bi jiitu eh, bi ñu indi woon tey incha allahu taala bu ëllëgee nu ñëw yenn ci beneen xikma ci wax yu am solo yi nga xam ne sëriñ bi daana ko wax te daa ko dénk murit yépp ak jullit ñépp ak képp koo xam ne rek sa yitte mooy yàlla ku ne xam ne sëriñ Tuubaa moom eh, adduna sépp la fi nekkaloon lim daa digle itam ñépp la ko daa digal képp ku bëgg lu baax rek moom ci moom bind na wax ne li mu yéene ñi ko topp ñoom moom la yéene ñi nga xam ne itam ànd na ñoom moom lim leen di ñaanal itam loolu lay ñaanal ñële jàmm jàmm moom la yéene mboolem jullit ñëpp di leen gërëm di leen sant wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wal tudxil almusliha fi yadi wa daari wa thabbitanhu bilhaadi alwafi